di rak aussi ci ki nga xam ne mooy Mbaye si Ndiaye muy suñu xarit Gumba Anta Ndiaye woy bu neex bi moom la seen ba seet si évidemment benn la rek ma am mbégte bu baax a baax magu mbay si bi grand di am di la gërëm si vraiment ci ci jotaay bi. waaw nu mu demee yaa ngi ci jàmm naka. Mbaye Sy sa booy la ah, sama booy la waaye sama rakk la topp sax ci man di leen jox seen wàccuwaay rek di nuy ñëpp di nuyu waa Sénégal yëpp. gars yi moom ay coow bruit bu amee rek moom ku ne euh, commencé di wax. maa ngi leen sant ñëpp di leen nuyu. leen jox seen wàccuwaay. très bien waaye. bala maa ñëw si actualité bi. groupe Faramaréne de amati nañ ndam ci bis bu mag bu ñuy waajal Adidas Arena bi 7 décembre bi dégg naa ni ci invité d'honneur yi ci ngay bokk. ah invité d'honneur moom ñëpp ci leen bokk ndax ñun ñëpp moom bu waale amee bu amee bu amee programme moom Faramaréne ku képp kuy Faramaréne moom dootoo toogati. yaa ngi ñaan toujours suñu borom may ko ci ndam te da ci am ndam sax moom si kàttan yàlla su waa moom la nit ñi bëgg waa moom la nit ñi ñëpp di topp ku ko wax ku ko waxul. d'accord ban satisfaction nga am tey Wally liggéey ba toll fii ñu ne Adidas Arena premier africain bu koy unigré njëkk fa tëgg moom lay doon ban yëg nga am ci loolu. sant yàlla sant yàlla ndax Wally moom dafa bëgg moom euh, toujours moom di def loo xam ne toujours lu bees lay nekk. ndax am na fu mu doon joué euh, beneen kii bu nekkoon bu ne France comme joué na fa deux fois léegi waal day bëgg moom it joué waat feneen foo xam ne ni moom it mooy loolu. xam nga waale moom daal ku yabu di ko ñaanal gudd fan ak wér gi yaram man loolu laa ko ñaanal waaw lii dem noonu sax du ma ci wax mais daal maa ngi ko ñaanal gudd fan ak wér gi yaram ndax sama deret la waaw yàlla na ko suñu borom gën a taxaw mu am wér. sut baayam ay fan lool lool lool lool lool lool na ko suñu borom defal. waaw ndax ku ndax ndax ndax ku neexati turoo la daal. waaw du ko ñaanal jàmm suñu borom defal ko nag lii muy dem di ko sumb ji yàlla nag suñu borom yombala lépp comme ni mu ko doon defee ci yeneen yëpp te bu sooba yàlla noonu lay demee ndax ndeyam dina ko wallu baayam dina ko wallu man mii di ay man mii di cousin ak ay cousin ak mbokkam ñun ñëpp ñu ngi koy defal ñaan. pour mu am ci ndam te bu sooba yàlla dina ci am ndam. waaw ndax Wally tiitaroo la moom vraiment. koy tiitaroo la. Mhm. alors bokk na ci li gën waral jotaay bi dafa am polémique boo xam ne certes jaadu na ñu mel ni yéen yéen ñi bokk ci famille bi ngeen yëkkati si ay kaddu ndax am na ay xale yu nekk ci TikTok bi ñoom it ñoo xam ne xëy na bokkuñu ci famille bi te ñu ngi siy wax seen xalaat looloo tax ñu seet si la kadduy Papa Ousmane Seck ci ne lu bare bari xewati na maanaam ba ñu takk ay rasul famille bi yëguñu kooku yu demee am na ñu gis ni kàddu yu njumte la am ñu gis ni aussi il est très placé pour yëkkati kàddu yooyu yow ban leeral nga ciy def. lenn maa ngi wax sénégalais yi Ousmane bàyyiwu ay solo Ousmane ak Thione Seck ñoo bokk ndey ak baay Ousmane bu defalul wareefam rek moo Ousmane Seck ñoo bokk moo Thione sekk ñoo bokk ndey ak baay donc loolu yoonu kenn newu ci xam nga xam nga parce que euh, sénégalais yi danoo gaaw ci polémique danoo gaaw ci nit ki des fois mën nga juum des fois da ngay juum xam nga mais bu question da ngay juum rek nga parce que démb maa ngi gis ay ñoo xam ne dañ ci message di saaga ñii ñii di ñii di dépassé ñii di wax yoo xam ne nii seen yoon néew ci parce que baayam la xam nga baayam la man man mii di di jarabaat rek damay jàpp ni dafa juum parce que am yoo xam ne moom moom wax bi du foofu moom waru ko waxee foofu parce que fii kenn ku ne ak sa problème ak sa famille. Mhm. du si internet nga koy waxee waxee wala si télé yi xam nga loolu mooy problème bi quoi mais. d'accord doo juum rek ah. d'accord alors kaddu yu mais tamit est-ce dafay wane ni cër bi nga xam ne xëy na lu bare bari amoon nañ ko ci seen digganteeg Papa Thione tamit xëy na am na ci loo xam ne xale yi bafoué nañ ko lu mel ni tamit mariage ni mu sacré moom wax nga ko muy waajur ci xale yi te yëgu ko tamit c'est à déplorer. man mii di jaam di jaamu Aïssa yëguma ko mais duma ko toog ci ay kii di ko fi wax yaa ngi dégg parce dafa am yoo xam ne ni maanaam des fois nit ki dina dem di ñaani wala di waxtaan sax ñu jënd goro def fu loolu amul problème jàppee ma koy dara yàlla xam na ko jàppee ma ko dara defu may daara ay sax sama sœur la sama cousine la sama xarit la man ñooñ dama am si ñoom sax yërëm mande ak yërëm yaa ngi dégg coon bi mu nekk këram chaque jour dama faral nekk chaque jour bi coon demee Kiné Diouf ne fa dama faraan nekk yaa ma dégg mais damaa dem ba am si ñoom ñeewantal goo xam ne nii yaa ngi dégg su ma demee ca kër ga wala ma toog ci buntu kër gi noonu dama naan yàlla rek ay yàlla comme ni Thione Seck doon wax yàlla rek ay Karim dama am ci ñoom benn ñeewantal yàlla mi itam xam na ko xam nga nag comme ni ma la waxee rek moo ak Thione bokk ndey ak bàyyi Aïssa doomam la xam nga Ousmane dem ñaani ji Mapandi dem ñaani ji Assane Ndiaye dem ñaani ji c'est la même chose parce que ñoom ay kilifa mooy ñoom ñooy suñu kilifa. waaw mais nag bon lii jarul polémique jarul polémique pour man. amul polémique quoi damay jàpp ni rek ni Ousmane maanaam war na ko mënoon a euh, gérer moom ci boppam. mais du ma ko réglé mañ parce que loolu yàgg naa ko wax. am yoo xam ne du ko wax man ci ay affaire kii duma ko wax ci ay mbedd ay mbéjaa du ma koy wax affaire famille la dama koy garder parce que yoon kenn néew ci intéressé wul kenn ñun la intéressé yaa ma dégg moom nag juum gi mu juum moo tax booy ku ne di wax. est que du tamit naqar naqar bi maanaam yëguma ko famille bi kenn yëgu ko loolu tamit xëy na lu lu lu ko métti la d'une part ni mu waxee. déggoo ma xanaa déggoo ma si li ma wax làquma li pël de dama ni la des fois ku góor mën na ñëw di waxtaan si di waxtaan si ñu ne ko yaa ko fi yàgg jëndal ñu may la mu jënd guru ñu may. mais après ñu yëgal ko ni ko war a yëg. non après après après après loolu ñoom def nañ ko maanaam Ousmane li mu wax da moom yëgu ko takk bi yëgu ko Assane Ndiaye lañ woo yaa ma dégg xëy na moom it Assane Ndiaye mën ngaa woote jot ko moom xëy na mën nga ko woo jotoo ko yooyu mën naa ne xam nga mais man pour man lii du polémique gars yi kenn ku ne na nga dem régler sa problème famille te bàyyi famille bii parce que gars yi bëgg noonu trop heure bu am ñu bëgg cee commentaire di ci wax amul sens. mais surtout li ma ci gën a gis am na sax ay tiktokers yu génn mel ni kuy jëlal tànk Wally ah di attaquer Père Ousmane ñenn ñi di ko ci wax sax ay wax yoo xam ne aussi tegginewul naka nga jàngatee taxawaay boobu. Wally moom Wally moom Wally Wally àddina la Wally Sénégal la Wally fépp la mais Wally sa normal Wally mooy nit koo xam ne nii tey nit ñi ñoo ko bëgg. gaa yi amuñ ci moom sago. moo tax looy wax ci Wally na doon jàmm parce que am na nooy def rek yaa ngi dégg gars yi dinañ la wax looleen dinañ la sànni xeer dinañ la dépassé waaye moom suñu borom defal na ko loolu moom am na ñu koy tontul moom ñoo xam ne ñoom uniquement dañuy toog di xaar ku jege waal yi waaw ñoo xam ne seen yoon newu ci mais ñoom dama leen comprendre parce que ñoom dañoo bëgg waal yi xam nga maanaam dañuy bëgg waal am ci moom benn yërmande loolu la ko quoi mais man pour man loolu garaawul de mm-hmm. man de def moo ko problème. d'accord d'accord kon kàddu yi daal ni ko famille bi jàppee ak ñi nekk ci mbedd mi ñi ciy waxta seen yéen say seen yoon nekku ci niñ ko jàppee du benn. congaan sa famille man sama yoon newu ci te tey maa ngi yow sekk nañu jàmm. àddina noonu la tëddee yaa ngi dégg yow sa famille donte sama booy nga sama xarit nga yaa ngi dégg boo ñaanuma ko yàlla seen famille bu doon am problème du ma toog fenn di wala ma toog naa la noo congaan noo fexeel sa mag ji wala sa wax sama newu ci te nga. loolu la Sénégal yi war a def kenn ku ne problème mu famille am nga ko sa biir kër te du bugg ko ko tudd xam nga Ousmane nag ma dama koy digal rek leen parce que Ousmane sama kilifa la mënu koo jàll mënu ma ko wax loo xam ne nii mooy loolu moo lu négatif la mais dama koy wax bu ëllëgee yaa ngi dégg journaliste bu may laaj sama famille dama lay freiné sama affaire famille soo newu ci yaa ngi dégg yow dama xam nu ma lay def. mais sinon dama naa la congaan bu ma woo affaire famille bi te yoon nëw ci parce que ku nekk yaa ngi sa problème war koo réglé sa waaye waaye te ko loolu rek àdduna amul solo nan koy rafetal rek. grand Goumba Ndiaye di mag ci Mbaye si Ndiaye moom la seen bés di am ak jotaay di cousin aussi ci Wally Seck grand wala fii dañuy faral di wax ni ku ñëpp taf li nga tooy Papa Keba Seck yëkkati woon na ay kaddu tey Papa Ousmane tamit li mu wax tamit ndax it jàppoon vraiment dafa lii ñu bëgg wax rek mooy xale yi xëy na xaw leen orienté un petit peu ci communication am ci digganteeg famille bi aussi loolu la ñu bëgg wax aussi ndax famille Papa Thione moo toll noonu quand même. man daal euh, du ma fii man di yàq sama famille yaa ma dégg hmm. du fii nii sama famille lii sama famille nangam mais daal maa ngi leen di ñaaxaat ñoom. parce que ñoom ay papa lañ ci waali papa lañ ci Aïssa papa lañ ci moomi papa lañ ci Aliou papa lañ si Mohamed yaa ngi dégg Mohamed euh, ñoom li ma leen ñaaxe mooy nañu gën a ñoom nañu dem gën a jege seeni doom parce que ñoom seeni doom ñoom ak doomu coon doomu ma Mapenda ak ñoom ñëpp c'est la famille nañ gën a jege jegewaat famille bi gën a jege waat seen doom surtout nag ñoom ñi nga xam ni seen papa ak seen yaay ak seen mag dafa demandoo lu garaaw a ngi noonu. yaa ngi man man man moo tax man man ba tey may am si ñeewantal ci booy yi barke Serigne ba man ñoom dama ñaan ak ñoom suñu kilifa yooyu nan demaat ñoom gën a jegewaat seeni doom gën a amaat ci ñoom yërmande gën leen a taxaw xam nga parce que xam na ni fi mu ne nii jot amul ndax dëkk bi léegi moom mooy loolu. yaa ngi dégg mhm. mais dama leen di ñaaxaat daal ñoom ñoom seen i kilifa ñoom seen i nijaay neen gën a waat xale yooyu waa kër Thione Seck yi voilà. li ma ci gën a déploré man dinaa woo Adama dinaa ko wax dafa am ka wax kàddu yoo xam ne vraiment du lu ma rafetlu donte ni bokkuma ci famille bi naan li nga war a wax yow papa Ousmane mooy nga wax ma penda mu dem daale ji bi papa Thione demee nangam de vraiment kàddu yu ma ñaawlu la yow kàddu yooyu Adama yëkkati noo ko gisee gum. ma naqare la démb démb moom mu ko dugalee moom si sitam Adamo tontu naa ko moom si itam nee naa ko yow soo yoon nekku ci waaleeg Ousmane ñoom ñaar ñii leen def Ousmane Seck clip bi mu mujjee def bi woy maareen waalee ko fay yaa ma dégg waal yëkkati na morso bu bees bu neex jox ko Ousmane parce que baayam la ko defal yaa ma dégg loolu Adamo moom yoonam nekku ci nit ki da koy jox cër bu fekkee moom dafa bëgg waali day moom dafa respecté waali warul wax sa wax ju ñaaw jooju ma wax parce que moom yoram nekku ci xam nga parce que man comprendre ma parce que genre yooyu ñooy tas famille yaa ma dégg te Ousmane ni mu waxee c'est pas sax méchant booy seet xam nga man kay damay problème kay mooy boo toogee ni yow ni yëguma xew bi yaa ma dégg man pour man sama xalaat du foofu la koy waxee moom ba pare ñaareel bi ki ko laaj boo ko laajee mu ne la déet sama affaire famille bu ci dugg xam nga man pour man. kon yéen attaque personnelle jaru ko woon li aada def tudd ma pend ak yooyu noonu du loo xam ne vraiment rôle bu mu waroon a am la. ni mu ko waxee moo ñaaw déglu naa vidéo bi wax ji ni mu ko waxee moo ñaaw moom parce que Adama moom respecté wul nit te dafa war a respecté famille Thione Seck parce que xam nga lu tax. Mhm. parce que xam nga lu tax. Mhm. Wally ay papaay Wally même mu defee erreur moom du noonu la koy fajee. xam nga parce que wax ji wax ji moo ñaaw wax ji moo yabaate. Mm. xam nga parce que Ousmane moom du moromam Mapenda du moromam te pourtant de eh, bi Kine Diouf gaañoo si jouru dëj bi si la Mapenda jóge France ñëw Sénégal sa suba ga maa ñoo nekkoon Kër Waali xam nga parce que moment bi coon sekk di gaañu moment boobu ku wut fa woon. moment ci couvre-feu la boon yaa ngi dégg après couvre-feu bi xam nga gars yi nii ma peine war a jënd billet pour ñëw gars yi nii waa France danoo tëj seen kii yeeg yooyu ma peine ñëwul mais après problème bon mënta ñàkk des fois ay coow ak biir bi mënta ñàkk mais après dafay jeex après jeex na ba ñoom ñaar ñu nekk mburoog soow daje na kër waal yi ba tey ma peine waale tere leen jox leen ay paas ak ay transport sama karam xam nga jox leen ñaari yoon sama kanam yoo xam ay deux cent mille kii deux cent cinquante sama kanam dégg kon moom dafa yëgul xëy na xam nga mais dafa am yoo xam ne nii moom du xam bu du fekkee ni famille bu amee problème bu ci mënta wax lu rafet bu mu ci wax ba ci dépassé. d'accord très bien voilà maa ngi dégg de ñu naan Awa Baba Thiam Bougane Gueye Dany da ko takk am na nag site bu ma gis vraiment ñoom ñu wax ba tudd ci Wally Seck ni xëy na <laughs> moo may Bougane Awa Baba Thiam. loolu de man leer na mu ni moom bu amee xam nga ci dara. loolu moom amul te xam naa nit boo amoon man man mii man mii man man mii waa dinaa ko yëg. mariage bi amul wala waale bi ci tudd. amul. ah kon xam naa loolu amul ndax waali xam naa numéro damay dégganteeg moom awa baaba it sama jigéen la sama sœur awa baaba man boo koy xam xamul waali xam naa ko bu yàgg xam nga <laughs> waaw. mais góob mu ne am na daal amul. Sénégalais ñoo am jot bëgg topp ci ay port viwu jàmbur sa vie man sama yoon viwu Awa baaba ak Bougane yoonu kenn nekku ci ah viwu Waly ak soxnaay dara yoonu kenn newu ci sama vie man ak sama soxna yoonu kenn newu ci àddina noonu la war a tëddee gars yi ñoo dañ kumpa bëgg dugg ci problème mu famille jàmbur. di ci am jot da ci wax di ci inventé ba pare nag di dépassé loolu ma gën a naqari. d'accord fi may jeexalee sa temps bariwul maa ngi la fekk ci ay activité dafa am loo xam ni taxawaay bu bu benn Benjamin am c'est vrai c'est vrai mais bala <laughs> Fallou Benjamin li muy def ay yendu mercredi yu mucc ayib yi nga xamee ne ñu bari aussi ci fan seek melomaane ñu ngi ko fay wuy si lan nga bëgg naa moom nga gën see jàpp ak say yeneen moroomu site yi Fallou Benjamin mi ngi joué avec Wally ba tey moo ko Wally mburook soow la moo ko Wally dee moo la ñu tàqale waxoon na ko ci benn concert Wally moom jaamu Wally la comme man ni ma nekkee jaamu Wally xam nga mais dafa créé benn affaire boo xam ne mës am Sénégal un marim bis nga créé groupe groupe bi ba tey c'est la famille parce que groupe Ramdan la moom ba tey muy def tous les mercredis ravin vingt heures lay commencé vingt et ñu dem ba zéro heure mu jeex ñu koy def soirée yu taxar naase yoo xam ne jël ay anciens ay ponkal yu fi ne yi fi nekkoo ñoo xam ne déggatul leen wala ñoo xam ne sax ba tey dégguñu leen ay seen way anciens yi leen yi jël defar ko defar ko mbalax mu tar lool xam nga seen angéwal ñuy bëgg Sénégalais yi ngeen ñëw jàppale ko ngeen ñëw jàpp ci affaire bi jàpp ci liggéey bi tous les mercredis la. ravin vingt heures vingt lay commencé minuit minuit demi mu jeex yendu lay nekk mais macha parce que Serigne baam macha allah may ñaan sénégalais ji leen ñaaxaat ñu ñëw jàppale ko parce que xale bu baax la xale bu yaru la xale bu neex a puus la voilà. rendez-vous à chaque vingt heures fële nga chaque mercredi fële nga xamee ni mooy ravin. waaw tous les mercredis kay jeexal na wax tous les mercredis vingt et une heures lay commencé ba zéro heure. zéro heure demi mu jeex mais euh, booy baa ngi toj rafet de barke sëriñ Bamba xam nga war am daal moom fi moom booy seet Sénégal ñooy numéro un ñooy numéro one te gars yi moom mbalax mu saf sàpp la gars yi def waaw ñu ma leen ñaan nag ñu dem añi yi ma dama xiif sa si jotaay bi ma fekk si tudd si tudd. sama grand. sonn waaw yàlla baax na yàlla na yàlla mu defal xéewal defal ñu xéewal. ma lay gën si la. nu gudd ferge yaram kontaan